mbokki Sénégal jigéen ñi bëgg lu baax bëgg style bëgg mode laa bëgg a waxal yéen ñi bëgg fu ngeen defaroo ba génn ñu validé daw leen gaaw seeti fas yéen Baye Collé Laye gérante ba di wóyoo ci turu Collé Laye madame bay nekkee ci VDN côté supermarché exclusif di yëngu ci lépp luy taaral jigéen ma ne mbokk yi produit greffage yi yéen a ko doon laaj cheveux naturel yu baax yu gudd yi yéen a ko doon laaj dama ne seen njàqare jeex na ndax Collé Laye da leen di defal leen kenn mënta defal bu ngeen bëggee escurely placage greffage wala ngeen seen i greffage bu

clôture nag mbokk yi moo ci teg loxo di ngeen fa fekk ay trois di ngeen fa fekk ay kim ak ay frontal lépp ngir dab seen bànneex longooru greffage yeeg périg yi nag mbokk yi am na ci li ko dalee ci 10 ba ci 42 bu dee da di bañ ku leen nax nag ci greffage ak ci périg ci mbooleem produit yi ñuy def ci greffage saa yu ngeen demee ci moom mën na leen a li gën ci yéen elle disponible ngeen mën ko woo ak Kolle laay madame Mbaye ku fi ñaaw Serigne ci yow kon nag fas yéen bàyyi ko lelaay ku ko seet si seet si sa njariñ. My baby got me for life, for seraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa Mohamed Ndao Tyson mënu jàpp ne mooy remplacer Alioune Sarr ci bopp CNG guddi yi bu ñu waxee ana mooy remplacer Alioune Sarr xel yépp ci Mohamed Ndao Tyson bi Matar Ba nekk xel waaye ku ci nekk yaa ngi nàmm sam xel jëmale ko ci benn leader mbooleem ñi nekk ci lamb ji ña ca ëpp seen xel Mohamed Ndao Tyson la daj loolee moo waral sunu lamb xëy fësal ko ci xët wu njëkk ba boole kook Alioune ne Tyson désormais présenté Sarr li waral li ni mel nag njort ganu njort ne dañ ko doon tàggat ci ànd gi mu doon ànd ak Alioune moom Mohamed Ndao Tyson bañ ba nu ko laajee leen rek la leen tontu kii remplacer le président Alioune Sarr le temps nous bu kenn yàkkamti nañu xippi suñuy bët di xool ba xam ana mooy remplacer président Alioune bu dee góorandooy ma jiite amateur yi la mu xamle mooy futur président président bi leen rek lañ soxla ci moom mooy mu nekk homme de consensus mooy président boo xam ne dana xel di déglu nit ñi bu mbir amee mu waxtaan ceeg nit ñi ba ñu trouver terrain d'entente nekk koo xam ne day taxaw temm ci liy doxal làmb président bu mel noonu daal lañu bëgg waaye bëgg lu leneen gannaaw Alioune mi fi def ñaar fukki ak juróom benn ci bopp CNG bi jeexal na nañ fi indi nit koo xam ne dana mën waxtaan ak ñëpp bu dee zoo technique président liggéey ji li ciy gàllankoor xam naa ko mën naa koo faj ñi naan bu fi jógee ana moo fiy nekk ñooñu laa bëgg dalal seen xel dama bëgg ngeen deltu ginnaaw xam ne zoo technique a ngi fi te mën na dara lépp lu lamb ji soxla pare naa ngir def ko ci fépp fu lamb ji bëgg àgg noppi naa ngir yóbbu ko fa il suffit que ñu jox ma CNG bi rek ma doxal wax leen li ma mëne te tëggoon fi combat Baye Mandione ak Xoyantaan fële ca Gambie moo tëggaat revanche neex xooyantaan ma jamaykee waroon a booleeg Tyson mujjee na ko booleeg Baye Mandione bi lee revanche Dakar lañ ko fas yéene defe fa jël laam gannaaw dañ koo defe woon ca Gambie wee lamb ja bii ñu fas yéene defe ci Dakar bu ko baaraam yàqu dina am ku daan bu nu jàllee ca lit sans frappe sunu lamb dafa ñëw ci bilan bu ndaw bu mu defal arène boobee di Adrien Senghor la ca jukki mooy 17 journée lañu fa tëg 12 ñoo fa am 16 millions daan journée Doudou Sané daan Pape Ndiaye septième journée ba Thiaka Faye daan Général Malika dixième journée ba Ibou Ndiaye Obali daan Gaskel onzième journée ba Général Malika daan Zal Ndengeleer douzième journée ba Thiaka Faye daan Fils de Batlensiki treizième journée ba Gaskel daan Libidor quatorzième journée ba Boy Faye daan Obali quinzième journée ba Thiaka Faye daan Elimane Diouf seizième journée ba Boy Faye daan Ngel Jon dix-septième journée ba Fils ñu def 7 victoire 6 défaite ku wax écurie dóor dóoraat wax Zos ma tekki ngembam ku wax dóor dóoraat wax Garga 1 ak Garga Bismi ak Angleterre ba Garga dafa def année blanche Garga 2 moom it bëriwut ba mujjee génn écurie ba Gora Sock ak Moussa Balla Gaye ñoom ñaar ñëpp a ngi ci tuusi bébé Bismi ma ca bëre dafa am défaite Angleterre am victoire seen 7 victoire ya Boy Bawol moo daan Zal Bambey Kër Baba daan Ama bu Rëbës Ñang Baalu daan L200 daan booy wàllu bu jaxaay seen defe de dokki moo daanu cee ak junni bébé bis cee ak lébu bu dee seen président ba Cheikh Thiam la mu xam mooy bilan bu médiocre la suñu bilan ren bi baaxul santul yaay waaye leneen yokk cere dool ñeex li olof di wax rek naan bu yoon jeexul waaxu si lu jeex jërë ngeen jëf mbokk lii moo li gën a fës ci yéenekaay bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg insha allah mbokki Sénégal jigéen ñi bëgg lu baax bëgg style bëgg mode laa bëgg a waxal yéen ñi bëgg fu ngeen defaroo ba génn ñu validé daw leen gaaw seeti fas yéen bay Collé Laye gérante ba di wóyoo ci turu Collé Laye madame Mbaye nekk ci VDN côté supermarché exclusif di yëngu ci lépp luy taaral jigéen ma ne mbokk yi produit greffage yi yéen a ko doon laaj cheveux naturel yu baax yu gudd yi yéen a ko doon laaj dama ne seen njàqare jeex na ndax Collé la leen di defal lu leen kenn mënta defal ngeen bëggee escurlin plaquage greffage wala ngeen bëgg sérum yi nuy traité seen i greffage bu mu rafet muy wala ngeen bëgg ay steam pot pour defar seen i greffage bu ngeen yegsee ci dee yéen ngeen a bëgg greffage nag ngir defar seen i perruque peñe yaa ngi fii accessoire yaa ngi fii ak mboolem xeeti accessoire yi ngeen di soxla bu dee ay perruque ngeen soxla mbokk yi wala ay greffage am nañu ay boule perruque am ay importé ci longueur boo mën di bëgg ak couleur boo mën di bëgg bu dee ci wàllu clôture nag mbokk yi moo ci teg loxo di fa fekk ay trois raies di fa fekk ay kim ak ay frontal lépp ngir dab seen bànneex longooru greffage yeeg périg yi nag mbokk yi am na ci li ko dalee ci 10 ba ci 42 bu dee da di bañ ku leen nax nag ci greffage ak ci périg ci mbooleem produit yi ñuy def ci greffage saa yu ngeen demee ci moom mën na leen a li gën ci yéen elle disponible ngeen mën ko woo ak kolle laay madame Mbaye ku fi ñaaw greffage rek ci yow kon nag fas yéen ko lelaay ku ko seet si seet si sa baby got me for